tabaski jote yaay bañu rendi xar ya bañu ñaanalante korok sa bisba kula to ñont nang ko bal ndaysan waye man borom tabal ji man duma ko bal toñu ma tabaski avant tabaski lama toñ jël sama petit four yóbbu ko dana bay bagade Allah bah asalaamaaleykum. waaleykum salaam sama waay ah. sama waay ana maman bi. mais yow li ngay li nii rek lu mu doon lu nekk sa gémmañ gi koo soxla. ani maman bi maman bi. maman bi maman bi maman bi. man daral bi fi laa nekk waaye gisuma fi bi. non jaay fi fii nii nekk quoi. yow say wax daa gaawut. mënoo wax maire bi rek mu ga mu rapide non non sama yaay la fii nga fii la lan la seen bi ah lan la mais yow mii dama laa xàmmee yow barki dem mu ñëw woon fi may jaaye sama petit four bee grand four yi fee may jaayee nii fourne yi non loolu barki démb la woon waaw waaw laa ñëw fee mu jox ma euh, four euh, petit four ma laa koy ga. yow yaa ko yóbbu woon yow yaa yóbbu woon ga. sama yaay non defal ndànk rek. ñooñoo yow la joxoon petit four bi nga yóbbu ko keur ga yow ngeen yóbbu ko. wàcc sama yaay la. mo ma yoni wa léegi léegi fi sam nga. léegi pelante bi matna dama demone police bind ñooñoo pelante. léegi damay dem rek police bi mom da koy wat léegi day def mama fils ndax yow ak sa ndey yëpp ay sàcc ngeen. kan kan mooy sàcc man ah. ma du yow nee nga fiisam nga pelante bi léegi damay dem ñu dindi ko ñu def mama fiis il est voleur. eh non non de ma sàcc de. yow këddal ba xam. non non yaay ma yu yu yenn fër fër bi waaw moom waaw waaw waaw. da di dof dof lu rek yàgg sa ndey. jël sama mais sëñ bi yow ni mu demee nii ni mu demee nii di ko xam yooyu dof dof waaw baax na demal maa nii dema nekkuma fi woon wax nga dégg yow damaa demoon kër ga damaa demoon seeti madame <laughs> ah da ngeen defe ne man damay fanaan bis bu yàlla sakka si daral bi ah <laughs> mënumul moo lool toujours si daral bi ah <laughs> xalaatuma loolu sax salaamaaleykum salaamaaleykum ça va na ngeen def ça va Diouf Diouf mbaa xalaa yow Diouf amuloo jawar amuloo dara da ngay dee léegi nga dugg suuf <laughs> man de démbaw dema demoon sama kër noppalu wey madame defaraat ma sigote ma normal <laughs> wey <laughs> c'est te te te te te eh booy bàcc bàcc eh sama kar yi sanga nga leen ba ñu omo seen omo seen set na ah omo seen set na Omo Sen setna. setna, Sen setna. oh sake setna normal Senganga Senga Hey Bache Bache gisuloo mburti bi yow mburti bi da nga ko yobbu fofu di ko sang ah ah gisulaa ko kon loolu munul nekk loolu munul nekk loolu munul nekk loolu munul nekk ah loolu munul nekk ak juuf juufe juuf juuf juuf ah fii laa ko yeewoon fii fii laa ko takkoon fii fii laa takka mburta bi fii eh basila basila gisuloo sama kar bi mburt waaw gisuloo waaw dagala ba woon fii kay ah <laughs> nii lañu may def dañu may mbalax su ma ñu jël kar bi denc ko di ma tooñ di ma mbalax di ma tooñ di ma mbalax eh maire Thiaf eh maire Thiaf maire Thiaf sama kar bi mburta gisuloo ah <laughs> dañu may mbalax xam naa leen <laughs> dañu may tooñ su ma génnee rek ñu ne xaaral ñu def ko mbalak ay <laughs> man ngeen defen birib rek ma actionné <laughs> yaa dagga waaw ça va ça va bien alhamdulilah ah, man bi may dem sama kër fii laa la dagg waaw ah <laughs> dagga bàyyil mbalax yi fils bi fi ñew légui directement dama dem ni ni ni nañ yok pelante bi nañ nañ def nañ def mama fils daga bay len mbalax yi <laughs> bu len moy nek fi ngeen moy mbalax mais dañu bëgg mbalax dañu bëgg mbalax dañu bëgg mbalax mais amna lo xamanteni kenn du ko mbalagé daga lol togn la du ay mbalax daga mané wala lé daga wala wala ci ginnaw voilà. man di ngeen defee ne damaa yow yaa fa gis Petit Four Petit Four dem na bu yàgg moom laa lay wax ni mburt mburt. mais yow li ngay mburti mburti rek. lu mu doon. dagga xool ma fi bu baax. dama ni xoolal mburt. luy xoolal mburt. sama car noir blanc bi noir blanc. waaw ana murt. ana murt. waaw ah, nee na mort. Ah, na mot. waaw léegi loolu kay sant yàlla rek. léegi murti jar na kay. voilà c'est ça c'est indi kaalis bi. c'est ça. xam nga yow xam nga yow lan laa la yëgal yow affaire mbalak yi affaire mbalak yi ngay def yow ci yow la njëkkee ah dégg nga li ma wax. tey la doo jaay sama xar laa wax ba pare jël sa xaas dugal ko sa poos ba pare naan affaire bi jar na ay indi lu sama yoon man sama petit four laa tal. dagg kaaw ma tooñ. kaaw bul ma tooñ de. ma ne léegi sax waxatuma kaaw léegi Europe ndax yow faaw ñu tuddee la Europe nga réglé. dagg yow eh waxuma lool damaa wax ne murte du jar na du jar na man mais Kaaw yow li nga bëgg a wax lan la. tey daral bii day takka ñaar. lan moo xew tay daral bi day takka tey daral bi tey day takka laa wax tey tey daral bi day nekk ñaari daral tey tey bañu ma si dara tey tey laaga xam nga tabaski kar bakkan kar mooy tëdd avant tabaski bakkan nit mooy tëdd fii dagga jógal nga génne sama kar murta bi tey hey يبدل فوف يبدل جاي تاي امول داو تاي داغا بارل نعم. ياو سا بارل بوكو ام ليتار بوي ديم الاخره مو جوخ لاكو ياو سما جاسي بي لاي واخ فال سا فال تاي تاي درال بي داي نكا نياري درال تاي وا وا وا دمل داغا جوخ ما سما كارني مي مي سما كارني مي مان مي مان مي مان سما بوتي فور لا تال سما بوتي فور لا تال مان سما بوتي فور لا تال جوخ يا ما سما كارني ay man jëluma man jëluma tànk xoolal tànk hee sama kar billahi tànk sama kar billahi nañu dem si Thierno arjantu Thierno billahi jëluma arjantu Thierno